daje tey dañ fi daje tey ngir xaatim euh, diggante luy lëkkale ñaari kuréel yi te kuréel gi ci nekk am gannaaw wax fu am na gannaaw ndax état moo ko samp inaa ko ayesal aussi am na gannaaw ndax ren lay feete 30 ans kon am na gannaaw te mbooloo mi membres yi gën gaa néew egg na téeméeri junni membre ci Sénégal ak diaspora léegi nag wax fu ñun daan nañ ko def wala ba léegi ñu ngi ko def sax mais xamuñu nuñ koy organiser am na luñ ci umpale woon mais commencé naa leer ci ñun depuis pratiquement un mois bi ñu commencé am am contact ak autorité alors ku ci nekk daa nga def wax sa nga xam ko léegi nag convention bi daf koy organiser day organiser wax fa léegi que ku koy def mille francs ba 1 million 200 millions loo man en tout cas loo man def l'islam attan na ko te l'islam du ko xeeb du ko yéem mais na ngeen calculer ne bu ñu xoolee pays arabo musulman yi am na ci ay projet état bi defar ay barage ak ay immeuble ak ay ak ay centre centre solaire énergie yoo xam ne ni xaalisu wax fa lañ ko financé léegi nag la muy jur la ñu jëlaat di ko séddale ñu néew doole te Sénégal bari na ñu néew doole comme pays africain yu bari mais surtout Sénégal dafa def jéego boo xam ne tey nekk na exemple ci ay réew yu africain yi ñu ngi ñëw sax di xool Sénégal nan lay doxalee léegi wax fu bu amee boobu réussite te ne tey UNACOIS Yessal aussi am na jëmm boo xam ne yéen presse bi xam ngeen mooy lan mooy UNACOIS Yessal kon ñoom ñaar bu ñu dajee lu baax lay mën a jur lu rafet rek lay mën a jur luy jëriñ Sénégal rek lay mën a jur te jël engagement boobu jël nañ ko ci dañu commencé communication ci ñun suñ biir ci bureau national bi dem ci 14 régions yi parce que tey lu ngeen dégg fii rek gudd ngoon dana fanaan ci région yëpp rawat na waa diaspora pour lu ñu doxati wax ak bu ñu joxati asaka ñuy dem sax di laaj éclairage ci ci ci autorité autorité lu ñu xamul ñoom danañu boole ulama yu ñu ko xamal jàppale ñu ba fu ñu dugal suñu dërëm mu nekk fu leer te aussi day puisque bi ñu commencé liggéey bi euh, ñu ngi euh, def beaucoup de rencontres ak euh, d'échanges ak acteur de la vie économique et sociale pour ñu mën a xam lan mooy en tout cas ñu mën a ñi ko xamul ñu mën leen xamal lan mooy wax mën leen wan lan la wax mën a leen jàppale ci wàll social bi parce que ñu ci bëri ci ñun ñu nekk ci association bi dañuy def ak association bi ci boppam day def beaucoup de social mais tey peut-être laaj na ñu jël bu ñu xamee lan mooy njëriñu wax ak wax fa ni mu mënee aider ci wàll social nga xam ne day da koy pérenniser day pérenniser euh, action sociale yi parce que noonu la wax fa di di tëddee ñoom bu ñu gisee njëriñ li ñu gis njëriñ yi ñu toog ak ñoom waxtaan président Cissé mi recevoir ñu ak l'ensemble de son bureau ci lañ décidé na nag léegi liggéey bi dañ koy jëmmal euh, formaliser ko donc def convention de partenariat bi nga xam ne euh, autorité di wax dina lëkkaloo ak UNACOIS Yeesal nga xam ne ay sénégalais ñoo fi nekk di daan seen doole aussi ñuy jouer rôle important dans la vie économique et sociale ñu mën a taxawal donc pour liggéey ci wàllu waqf loo xam ne dañ koy jëmale ci askan bi. waaw box yooyu nag boo ko gisee dafay jëm toujours ci wàllu wax bi liggéey wax bi parce que dafay am lu ñuy tuddee wax waqf mën nga ko def ci ay immeuble ay terrain mais aussi mën na nekk ci wàll xaalis loolu nag mooy wax fonds waqf yi looloo te fonds waqf boobu dafa laaj nga yaatal euh, mobilisation des ressources bi nga yaatal collecte des donations léegi nag moo tax ñu loolu dafa nekk fonds box yi dafa nekk rek benn aspect ci stratégie de mobilisation des ressources bi nga xam ne ñu ngi koy commencé dérouler pour que ñu mën a am ay donation am sénégalais jàppale ñu ak ñu boole ñun autorité li ñu am euh, mën a taxawal ay waqf yoo xam ne day dem ci askan bi ñu ko commencé nag yàggagul euh, peut-être dinañ mën a def euh, évaluation bi wala communiquer sur les montants bu ñu defee collecte général bi mën a wax ne lii fii lañ commencé lii lañ ci jot a am te tamit mbir mi dafa laaj yaatal moo tax ñuy rafetlu jotaay yu mel nii dina tax sénégalais ñu bëri xam ko parce que peut-être gis am na ñoo xam ne gis nañ box yi mais xamuñu ñu ñu demee te il faut ñu def communication bi pour ñu xam lan moo nekk ci gannaaw pour mën a sawar dugal ci seen xaalis parce que boo gisee ñu def loolu mooy xeebuñu ku nekk lu mu am mën na cee def ñu dara wax fu demul ci wàllu million wala milliard mais loo am mën nga dugal ci wax bi loolu buñ ko dajalee boole ko dina mën a def dara ci euh, jàppale euh, askan bi. Euh, dama ciy bég trop comme ni ma ko waxee parce que dañu jox euh, sas liggéey bi ñu war ko yaatal wax fa da ngay jël euh, loo am ci wàll état dem wuti loo am ci coopération bi dem wuti ci biir dëkk bi Sénégal lu ci nit mën a jàpp nga boole loolu yëpp nag nga mën a defar xawal ay projet de wax te boo gisee wax du loo xam ne rek dañ la innocuwaatee daf ñuy jox xaalis ñu dem suba euh, jox ko nit ñi ñu dem déedéet loolu du wax loolu day dugg peut-être ci beneen activité sociale. wax bi euh, ñu ci am dañ koy jël dem seet lan la ñuy mën a liggéey loo xam ne day jur xaalis looloo tax liggéey boobu nag moo lay permettre nga ba su ne nga mën a saa su ne nga mën a taxaw jàppale askan bi parce que ci gannaaw am na ci loo xam ne ci nga wéeru loo xam ne mooy investissement boo def moo xam ne mu lay jox. ndax tey nii su ma ñëwee UNACOIS jox ma tey ma dem joxe ko suba ma ñëwaat laaj ko day xaw a doy waar donc ñun dañuy lëkkaloo liggéey ci loo xam ne dinañu mën a permettre ñuy am source de financement yoo xam ne dañ ciy jàppale askan bi moo tax may rafetlu tey li convention bi di ci woon ak secteur privé bi yëpp commencé nañ ko ak yeneen institution bancaire rek yooyu mais maa ngi ciy woo bépp secteur privé parce que ñoom dañ ci am wàll dañ ci war a jàpp parce que lépp lu ñuy def ci autorité ak ak euh, partenaires yi day dugg c'est juste pour mu day duggaat ci biir askan bi pour jàppale ko ci wàllu ñoom seen responsabilité sociale d'entreprise ñi ngi def maanaam ñi ngi def mais nag léegi dañu leen di woo ñu ñëw def à travers le waxtu boo xam ne dina mën a boole ñu mën a permettre ñu boole ñun ñëpp lu ñu am mais aussi dinañu mën a def loo xam ne dafay wéy sans li nga xam ne ngënee ñu ci am pour dimbale askan bi mais aussi ku ci nekk diñ ci gis sa ci wàll liñ ci wax ci ngënee ci wàllu aussi Euh, diine bi parce que tiyaabo yi ngi am rek defe naa ne war na tax ku nekk sawar def ko ci loo xam ne da continuer di la di la fekk même boo fi jógee dafay continuer ak yow bu bés penc defe naa loolu am na am na am na solo léegi nag ko amoon kenn natabalewul ni muy représenté ci Sénégal ñu ñëw fekk bureau bi ak président si sawar trop taxawuñu ne donc ci partenariat bi moo tax tey dañ koy dañ koy rafetlu euh, vraiment lii ñu signé tey di am nañ ci yaakaar torop ci en cas convention bi lan lay mën a jur pour askan Sénégal.